tajibu dana war zakat nisaabi naami asakay lépp loo xam ne mat na nisaab ci juri kër lu muy waree bu melkin ci moomeel nga xam ne génn ne ku ñu ko dénk wala ku ko leb wa xawlin ak ay na ay maanaam na mat at yàlla ñu ko moom woon ne dellu si xam laa loo xam ne mat nañu ñoom ñaar xam ne fekkente ne am nga lu asaka war ñu seet ko asaka war ci nga am ko tey ñaar fukk ak ñaar nag weeru wala fi wax weeru wala maanaam salatul xamar yéen moom lislaam jàpp te bokk at moom lislaam nañ ko jàpp tam xarit boo demee ba nga xam ne bu ci suba saa boo xëyee mu mat at mu mat sëkk asaka war a gu ci waaw bis bi ñun nga xam ne at mu manqué dara bu baax rek ñu farata ci war la moo xam ne kon la xabar la bu nit ki am na alalam toog nga xam ne ñaari at ñaari fan a des ci at mi bu faatoo te génnewul asaka bi du am bàkkaar bu fekkente ne nag bis bi ñu ko moome woon agsi nañ ci heure bu ñu ko moome woon passé na fekkee ne xam nga dafa am saa yi ki nga xam ne moom la nguur gi bu dee nguur gi islaam moom la yebal muy dajale asaka yi fekkee ne ñëwul bu faatoo du am bàkkaar bu ñëwee nag mu nit ñi daal am nga asaka moom ñu ne comme nanguwul a génne dañ lay forcé wante encadré na ci xeex ba ñu rey ci yoon ak ku ko bàyyi moom dañ lay seetaan ak yàlla xamuñu ndax sart yi matal nga ko ci biir wala julli moom dañ lay taxawal dañ laa da nga weddi julli wala da ngaa bañ a julli rek da ngaa am loo jàpp ba yaakaar ne julli moom ko war a julli nga ne ko jur mu ne wa in ma'lufatan doonte lu ñu gàttu yafal la woon itam xar kii yow ko ci këram pour benn mu tabaski wala di ko yafal su ma gis su réyee mu jaay ko wala lu ma doon xam ne daf ko yeew daal di ko yafal daañu ko compté waale ci di asaka wax waa am na tam wala gàtt boo xam ne wala jur goo xam ne day liggéey ci fas boo xam ne day bay ñu koy takk machine muy bay kooku ba tey asaka war na ci lañu di ko sëf wala muy root xam ngeen mafhum de nga xam mafhum moo am ak man toog su ma nee ku génn kër gi de naa la dugg luy mafhum bi du génnul kër gi duñ ko man toog ni mooy ku génn kër gi dinaa la dóor mafhum mooy kon ku génn kër gi duñ la dóor wax bi amul mafhum su ma nee ku génn kër kër dinaa la dóor waaye ku génn kër gi duma ko dóor amul mafhum mooy wax dina am mafhum wa rabaa'ibukum allaati fi hujuurikum min nisaa'ikum allaati daxaltum bihinna bi nga xam ne daan ngi lim ñi nga xam ne xaraam na di sëy moom wa rabaa'ibukum jam rabiba rabiba mooy ki nga xam ne soxna moo ko jur mooy rabiba mu limaale ko ci ñi nga xam ne xaraam na la mu teg ci àllaati fii xujurikum ñu nekk seen penk maanaam ñi nga xam ne sa kër lañu nekk ñu ne fii xujurikum jooju amul mafhum ndax même su dëkk woon ci biir dëkkoon ca àll ba feneen itam du dara ñu nekk seen xujurikum amul mafhum. ñu ne safaan bala mu jàpp. dégg nga de wan taajan ak ngir bu fekk ne jur gi nga amee dafa am bu jur boo xam ne ndee li mu jur ndee ak bàyyi yëpp ci jur boobu wala jeneen jur la boo xam ne juru kër la waaye laamin ha du caa génne gàtt bi nga xam ne dafa judd te lennam juru kër la lennam waa àll la comme kéwél la comme bàyyam nekk kéwél yaayam nekk xar wala yaayam nekk kéwél bàyyam nekk xar wala minha du caa génne jugee si njëru kër wa min al waxshi ak ci njaaxal am lépp benn partie njaaxal kooku asaka du ci war mu ñu wax ummat tàppifat na al faidatu xarfet lahu ñeel ko maanaam li nga xam ne moom la amoon xarfet mooy loo xam ne jur gi moom juru ko nee da nga am jur boo xam ne nangam la asaka war a gu ci ndax matagul lim bi bu dee gàtt ak gul ñeent ñu may la yeneen nga boole ci comprendre nga kooku mooy faayida loo xam ne daal benn dañ koo jënd wala dañ la koo may wala dañ koo don wala nga amee ko neneen daal moo xam ne juddoowul ci yi nga am loolu dégg nga mu ne wax bu ma ci tappe fat na alfaidatu xarfet lahu ñeel ci alali cosaan bi ci alali cosaan ji wax nga xam ne ñoom dégg ما تجدد في ملكه من النعم بشراء أو هبة إلى آخره سواء النساء منزل وإن قبل حوله دونت دنج كو جوخون تي لا جيتو مو أي مو من بس خم بيساتي مو أي إن حصلت الفائدة قبل تمام حوله بثمن قليل بل وإن حصلت قبل تمام حوله بيوم يجوز من الزمن ولو لحظة فمن ملك أو زكى نصاب نعم أول المحرم وملك نصابا آخر في آخر يوم من الحجة من ذي الحجة زكاهما معا لن برد من عاشر waaye bu fekkente ne nag da nga ko am te at mi matagul mu ne kon da nga ko tàppe da nga ko waññaale maanaam ca lee waaw ibnu asir dafa ne wa xawlu larbaai wa naslin kal usul wa taari laa ama yu zakka an yaxul fàtt ngeen ko maanaam bi mu jox maanaam bi nga joxam wa xawlu larbaai wa larbaai la sax wa naslin kal usul waaw léegi dañ koy jàppe wa taari laa ama yu zakka an yaxul mu ne wa xawlu larbaai ayuk tono yi mooy bénéfice wan na siin ak gerte mooy boo amee tey léegi téeméer ak juróom-ñett fukk day yaxante ba jub tam xarit mu yokk ba mat nisaab mu matul woon nisaab léegi larbaax ribx la moo ko matal dañ ne waxoon larbaax yi ci def risaala xawlul usuli tonam bénéfice dañ koy mu ngi li ko àtte mooy àtte cosaan la maanaam capital ba naka noonu itam lu jur ndey yi ko jur fa mu tàmbalee lu mu fi juraat ci diggante bi ñoo bokk àtte ci bu at na nga ko moomee woon rek bu ñëwee mën nag waxtaari ak lu ros si mooy masala nii loo xam ne dafa ros si waaye nag laa du caagi ni aji ros bi nga xam ne duñ ko asakaal ñu njaxul mooy boo xam ne ne at mi dafa mat ba noppi nga am leneen luñ la may loolu moom bala nga koy asakaal mu dellu si laa am ay zakka ak njaxul ko suum da ngaa moom ci daal fanweer ak juróom-ñett waaw nga xam ne ñaar la manqué waaw yàlla def ci
bi tamxarit bi daal di ñëw nan jàpp tamxarit waaw waaw léegi tamxarit bi ak si nan ngay def maanaam nga génn nga tàpp ko ci ñaar kañ nga boole ak kan lépp waaw léegi nag su fekkee ne dafa mat ba tam xarit bi ñëw ñu mayaat la ñaari xar ah léegi nag loolu dafa jëm daal.
ñaari xar yi moom day nekk ba dellu si waat soo ko rafetal. kari la am naa is la kari ñëpp. dégg nga. laa du caa génn nag nga war koo asakaal wala nga war koo tàppe il ak li aqal la li aqal la ngeen dundee. ñeel loo xam ne dafa gën a néew misaal. dégg nga. bana faayda joo xam ne mel na ab bëy wala ay xar yi nga may fekk nga amoon ay xar nga amoon loo xam ne lii matul nisaab moo xam liñ la may léegi mat na nisaab ñeent fukki xar la wala juróom fukk est-ce que comprendre ngeen lan mooy différence bi ñu passé lan mooy différence
léegi da nga koo mottale rek waaye moom motuloo ni sax bi waaw bii moom mat na li dafa mat nisaab bi mu gerte bi wala déedéet bi moom dafa mat ni sax waaw déedéet moom bu fekkee ne bénéfice la wala ngerte la moom moom moom dañ koy mu ngi mel moom cosaan mooy cosaan cosaan yi rek ñoo tàmbalee fa mu tàmbalee moom moom wax bu mu mën a ñëw rek da nga ko asakal moom xarfet la ñu wax mooy loo xam ne nii juddoowul ci lii nga amee juddoowul ci capital bi ngay commercé juddoowul itam ci jur bi nga amee loon sa bopp ndax bu bu dee lu jógee ci bénéfice wala mu jógee ci ngerte bi rek moom cosaan la la ñuy seet bu cosaan li ay rek ay na wuuti nag lu ñu la may boo gisee ñu ne lu ñu la may wala loo doon la wala loo xam da nga koy jëndaat loolu nag la ñuy wax ne loolu bu fekkente ne dafa dafa ñëw fekk mu mat nisaab wala mu ñëw fekk matul nisaab mu ñëw fekk at mi matagul wala mu ñëw fekk at mi mat ñeenti masala yooyu la mu ne la waxuma ci kàppee fat na alfaidatu xarfet lëxoo ñeel nisaab ja nga xam ne kon mat na nisaab wa in qabla xawlihi donte xarfet bi dafa ñëw te fekk at mi mat ak at mi nga war a asakaal ñëwul itam da nga ko ciy boole nga asakaal lépp bi yow mi la donte bis la waaye laa li àqal la du ca génne bu fekkee ne gën na néew dégg nga nisaab bu fekkente ne li nga amoon moom matu woon nisaab kooku doo ko asakaal kon kon xarfet xarfet bi doo ko asakaal li ngi ba tey mu dellu see wax na al libido mu ne gëneel dana waat ku kulli xam sin ci bépp juróom juróomi madd baa inatun xarum baa ina baa ina wute naag béy mu ne ab daa ina wataawa lil waxdati maanaam ngir li mu nekk benn rek moo tax waaye du tagi taaniif kon waaye bu fekkee ne li mu nekk benn tax ñu def ci taa gi mën nay góor mën nay jigéen waaye du tee mu nekk ko dégg nga mu ne kon xar xar mu toll nan mu ne na سنها وصفتها كالشاة المأخوذة منها عن الغنم يكفر فيها أنه يؤخذ ذكر الأنثى اشترط القصر أن يتحدى بين الخطاب يرعى أن يفرق بينهما بشرط كونها دائمة إن لم يكن لها gàtt daal ngay génn xam ko at wala mel góor wala jigéen boo amee juróomi juróom daal di nga génn gàtt in lam yakun lim nekkul julli julla wala julli mu ngi julla waaw kan di julla xanamil baladi di la ëpp ci xanam ñu koy waxee ci wala gàtt wala juróom réew mi almaasi bi dégg fekkee nag li fi ëpp daal mooy béy am ñu xar dana xaw a jafe am wala yooyu wala am li fi ëpp daal mooy béy mais ngay génne kon ndax dafa ne woon ba ay na xar fekkente nag li ëpp ci gàtt réew mi daal mooy béy moom moom ngay génne wa in xaalafat doonte wuute na ak teb ñooñu réew mi
bu xar xar na bu waaw juróomi juróom waaw léegi da nga dem jënd xar wala mën nga jënd jënd xar kese ak wala nga dem jënd xar jënd kooku mu ngi aju ci jaraaf ci fekkee ne nangu na xaalis bi ndax moo ko gën a noppal mu jël mu jël ko ndax saa yi bi moom maanaam jaraax ji ki wax ne mooy dajale kii moom dana jël xaalis ndax commerçant yi xaalis lay jël si ñoom di jël si baykat yi dugub wala tàndarma wala ñebbe wala yooyu lañ bay rek bu fekkee ne dégg nga lu ñu nàngal la wala lu ñu nàngal osur beeg borom osur bi gis osur bi bu fekkente ne borom jur la bu jël jur yi bu fekkente nag dafa préféré nga jox ko xaalis muy njëg gi ñu boole ko ci xaalis bi mu juree woon mafhum mu ne wa in xaalafatku donte su fekkee ne maanaam li ëpp ci jurug foofa moom waa ji moom ëppul ëppul ci moom moom xar la gën a bari wala am na xar yu toll ne bëy waaye réew mi li fi ëpp mooy bëy kon itam day topp réew mi mooy in xaalafatku donte wuute na moom alalam ak lay aaday réew wala lay aaday réew wuteeg moom alal la mu moom dégg ngeen ko de mu ni wala saxaw li gën a wér daal mooy ijzaa u bairin doyu gëleem bair nag moom misaalul melo moom da nga waroon su nga waroon a génnee xar wala béy bu fekkee ne béy bi gën a bari ci réew mi nga génne yow gëléem xëy na benn gëléem la gën a yomb xar jafe na wala rek nga bëgg lu baax nga joxe gëléem bàyyi moom dana doy mu ilaa xamsin wa ishrina ba ngay am ñaar fukki gëléem ak juróom bu boobaa looy joxe fa bintu ma xaab bintu ma xaab nga ne ko waaw bintu ma xaab moom mooy lan bintu ma xaab fukki mooy bi nga xam ne mu ngi nàmp ولو كان خمسا أقل من سنة وهو ما ارتضاه الأجر قال حتى لا بد من بلوغ سنة moom kon mooy bu fer li gën a bari ko mooy bi at mi matabul bi noonu bàyyi ñu xam ne chaati adam ijza yi an chaati fax wala zarat tamit wala tamit dégg nga mu ne daa xam sama tamit fa bintu ma xaab bu jigéen lay doon xëy nam takkun xam nga am na différence bu góor ak bu jigéen am na bu ci gën bu jigéen bi noonu xëy na mu takkul nga xam ne kon boo génnee góor bu doy fekkee ne nekkul amul buntu mu xaat salimatum bu dee aju ci kon foog mu la boole nga xam ne kon ba tey bu ñu waxoon rek bële moo gën mu la boole góor la kooku mu la bon ba tey mu la bon rek mooy buy nàmp ak def loolu koy weesu dégg nga wa fi sittin wa salaasiin xam nga kon lawxaat bi mooy li tàmbalee ci ñaar fukk ak juróom ba ci xam ne juróom ñaar fukk ba ci juróom fanweer ak juróom benn kon lawxaat bi mooy ñaata fukk ak benn muy waq ñu foofu dañ ko daan tënk man mat ni ba ma amoon xam ne amul sara jam yi bu doon daan ko koy daanaka amul solo nga ko calculer li nga xam maanaam lawqaat li ñu tuddee waqaf nga xam ne dara du ci war ba ba ngay àgg fa loolu kon ko waaw ba ba ngay àgg waaw kañ ba ngay àgg ak beneen war waaw boo war a génneet leen waaw kañ di génn wala xaas yooyu nag compte bu la leer na da nga daal taxam ñaata la toll muy noonu mu sittin li ci juróom benn nag arbayin ak ñeent boo amee ñeent fukk ak juróom benn xeqatul gëléem bi ñu tuddee xeqa moom ngay génnee xeqa ñaari at daal lay am dal moom du ñu am rakam waaw waaw xaj du ñu am rakam yow waaye daa wasitti na bu fekkee ne am na dem na ba am juróom gan fukk ak benn kon fanweer ak juróom benn ba juróom benn fukk ak benn muy ñaata différence bi wa sittin bi ci juróom benn wa sab'iina boo seetee si fi sittin sittin sittin wa sab'iina ak juróom ñaar fukk binta la boon su waxoon bint bint la boon wala waxul woon bint la boon dañ ko tëboon bint la boon جزاء بسوق ستين وأربعين حقة وإذا وستين جزاء
waxal fay lam takkul wa sayyidu kum la boon moom la wax in la boon wax na bint la boon bu fi sittin wa salaasina bint la boon waaw waxoon ko kan ko de fanweer ak juróom mel ba seet la waxaat bi sax bint la boon wa sittin wa arbaina ñeent fukk ak juróom benn xeqa wa ihda wa sittina juróom benn fukk ak benn dañuy joxe jasa ba tey mu ngi màgg rek ci sur bu ci ne at lay màgg ak morom wa sittin wa sabina juróom ñaar fukk ak juróom benn ñaari bint la boon léegi nag bint la boon bee xam nga fanweer ak juróom benn la woon ñaari bint la boon yi yaa ngi koy joxe ci juróom benn juróom ñaar fukk ak juróom benn juróom ñaar fukk ak juróom benn boo ko xaajalee nga xam ne kon tey jii dañ koo doublé kon nga xam ne gis nga asaka yooyu yëpp amul dara luñ ci xiyaas yëpp dañ ko jël ci xaddis yi wa miatin wa ixda wa ishrin bu fekkente ne nag dem na ba am téeméer ak ñaar fukk ak benn ba mu muy am te bu ñu dara te bu ñu dara wa ihda wa tisina kan juróom ñeent fukk ak benn ñaari xaqawa loolu laa waxoon waaw bu mu asin bu fekkee ne léegi am na ñaar fukk téeméer ak ñaar fukk ak benn وهكذا ما زاد أنه يهون إلى 29 فقتان 29 مرة إحدى وعشرين قتال أو مئة بقي إحدى وعشرين ومئة من كي بقنت إلى تسعين وعشرين قتال أو ثلاث بنات فوق دين لي بنات لبون معنا دين لي كان الور نياري حقا ولا نيقتي بنت لبون من واي نك تام بي من الخيار تام بي نك لساعي جراف من تام بكو سي بنن dafa ay ràññ ràññikoot na axaruma nag mun fari dem mbir mbir yi aji wér fekkee na loolu rek dafa am moom booba lay génne moo xam bu dee xeqataan ay xeqaat am xeqa yi lay jàpp bu dee lu bant la boone ni moom rek dafa am moom lay jàpp mun fari dem su ma fii kulli asrin topp bu xasee teg ci benn rek nag bu ëpp weesoo loolu léegi par fukk la ñuy seet fii kulli asrin fukk bu ci nekk yeta xayur dana changé alwaajib aji dana soppi ko alwaajib aji war bi ndax fii kulli waxtu woo amee fukk rek atte bi daal di soppiku ndax da ngay daal di seet ñaata ñeen fukk ci ne ñeen fukk bu nekk bint la boone juróom fukk bu nekk xeqa bu ko defee yataxay dina soppiku alwaajibu mën na gën a tuuti sax ndax fukk li arba ene ci ñeen fukk ñu nekk bint la boone bint la boone ngay joxe fukk li xam si ne ni si juróom fukk bu nekk xeqaatu mu ne wa bintul mu ngi commencé nag misaal mu ne wa bintul maxaab bintul maxaab al mufiyat wala aji matale sanatan ñu gën a waxoon su ma kazalika te kam kam al baqaru ayilun tabiun fi salasina baqar musinnatun fi arbain tustakat mu ne su ma kazalika topp naka noonu tam al baqaru nag bu fekkee ne ay nag yu bari nga am jét di ko asakaal fi kulli salasina ci fanweer bu ne tabiun mooy bii topp ndey bi bu sana tey nga xam ne am na ñaareel bu fi arbain bu fekkee ne ñeent fukk ñu ci nekk moom itam musin na musin na kooku mooy am mu ne zaatu salaasin mooy borom ñetti at ci nag nga di ko def ba wami atum boo àggee ci téeméer wa isrin ak nit nag comme que mi at yi di firi muy mel ne ko am ñaari téeméeri bëleem wala xam ne moom da ngay daal di nekk da ngay daal di am gàtt boo war a génne fi arbaina ci chaat non dafa jeexal kon si libéré rek quoi mu ne alxanamu gàtt nag fekkee ni moom la ñuy génne asaka moom nga jóge woon ci gëléem teg ci nag léegi noonu dem ci gàtt kooku moom ñe ñeent fukk bu ci nekk benn gàtt jësa ñeent fukki gàtt yu nekk jësa wala jësa um bu góor aw jësa um wala bu jigéen mu salatin jaza mooy mooy bokk borom at waaw wala ma asan donte bay lit woo fi mu asin ni ci téeméer nag wa ihda wa ishrina fi mu asin ihda wa ishrina maay ishrina mia woo fi mu asin ni ci téeméer wa ihda wa ishrina ak ñaar fukk ak benn téeméer ak ñaar fukk ak benn ci ay gàtt nga génn saataani nga ne ko nag bu ma continuer mu yow fi mu atee ne ñaari téeméer ñoo am wasaat bi boo ci tegee benn rek danaa sam ñetti gàtt yooyu boo amee ñaari téeméer yi ba tey yaa ngi woon ci ñaari gàtt yi waaye boo ci tegee benn gàtt rek ñett léegi ngay génn séddale ko daañu la jàpp kon bu fi arba yi mi atin mi ci ñeenti téeméer yi nag arba am ñeenti gàtt kon dafa mel nag téeméer bu ne gàtt su ma ne ku li mi atin moom noonu la continué te bépp téeméer nag saatu bu gàtt wala su ma warat nag al wasatu bu digg doom duñ jàpp la gën duñ tànn yi gën di la lor duñ tànn yi bon dégg nga di ko yóbbul buur bi dañuy seet rek bu digg doom wala woon farada doonte weetu woon na al xiyaaru tànneef yi rek ay siraaru wala kees yi rek itam wala wala ma waxoon ila xilaafin mustafiin illa an yara bare boo gis ne arsa jaraaf ji nag axdal maayibati jàpp bi nga xam ne ayib la am na ayib mu seet ne daal bii dana soox waaye quand même duuf na daal wala rëy na moo ko gënal bii dul soox te bii ëpp ko boo ko defee doo ko sañ a tere dégg nga waaye la saxi la saxi la si bu caa ngi di ndaawe rek mu jàpp na ko tuuti tuuti mu ne waxtu ma tàppe fat nag bux bu gëleem bux mooy borom ñaari jigéen ñi li érabin jëm ci maanaam dromadaire yi daal sono yi wa jaamuusun jaamus mooy nag yooyu nekk Égypte nga xam ne day élanger nii ba pare du niroog nii suñu nag yi fii day gudd nii dégg nga ba pare dañ koy sëf jéb bi def naa muy wax jéb bi mu ne ci xaaj bu njëkk bi de boo jaamusul jaamus daañu ko tàppe li baqarin ak nag yi nag yi ordinaire yi fekkee na nga am nag yi égyptien nga am ci fukk ak juróom am ci nag yi fukk ak juróom da nga leen boole ñoom ñaar wàññi ko pour nga joxe tabiya boo amee ñeent fukki itam ñaar fukki yi di xiraab waxtu ñii ñii di kii nag yi baqar itam da ngay daal di joxe da ngay def da nga koy daal di boole muy ñeent fukk musin na ngay joxe waaw kàtt la mu ne wa ba am xar daañu ko boole li ma afil ñeel béy ñu ne ma laaj ma ko waxu yi am li ma afil waxu yëral tànn lee fa tànn loo fat na saa yi jaraaf ci suñu wajabat ne mu war na waaxe ci benn mu tànn wata saawayaa te ñu léegi lii la am ci irab lii la am ci boxt ndax boxtu lay jàpp wala wala wala irab xam nga boo amee fanweeri nag tabia ngay joxe tabia bi nag bu fekkente ne lii bee xeet la lii bee xeet ci bii xeet la koy jàpp wala ci bii xeet la koy jàpp dégg nga kañ yemoo kontaan loo jaraaf bi mu ñëw mu ne moom mu ne ko ko doon si di wax ne am si waxu yi raa saa yi in wajibat waahidatu wa saa yaa wa wajibat sunna wajibat sunna waaw waaw dégg nga in wajabat waaxidatu wata saawayaata yem wa illa fekkente ne nag yemuñu ci lim nga am ñaar fukk ci buxt am fukk ak juróom benn ci arab kon na ngay def di gën a bëri commune al aksari wa sintaani ñaar mun ko lim ci képp inta saawayaat yemoo nañu fañ war a jàpp ñaat awil aqallu wala nga xam ne yemuwuñu waaye la gën a néew nisaabu mat na nisaab xayru waqsin te du buñ ko seetee du doon law bokk ci law xaasi comment ngeen di wa illaa su fekkee ne si nag yemuñu te li gën a néew wala li te itam li gën a néew matul nisaab kon fan ak daf koy jël ci gën la gën a bari wa salaasun wa salaasun de ngeen def su fekkee ne nag nisaab la taxul ñuy wax والمراد بالعلماء مع اعتبار الثانية كمئة وعشرين رأنا وخمسين مع أي إنما يؤخذ من الأقل بشرط أي كونه نصابا من يقرن يوم النصاب بحيث لو انفرد تجد شكل فيه dégg nga nga xam ne bu doon moom rek la amit li gën a néew bu doon moom rek itam daañu ci génne atam kon daañu ci jàpp wa kaw na waxee waqtin it te nekkul law xaas maanaam nekk diggante ñaari farata wa illa su fekkee ne ñaari sart yooyu amul falak saru daf koy jël ci la gën a bari bu ñu wàññee mu am ñaar fukki nag ak juróom yu box am fukk ak juróom wala fukk rek ak juróom rek ci xiraab ci li gën a bari da koy jàpp nee nga wasalaasun dégg nga bu fekkente ne maanaam ñett la war a jàpp wata saa waya te ñu yemoo ni ki kami atin wahidatin ba'nan wa misluha ma'dan kon fa minhuma day jàpp bii jàpp bii benn bu ci nekk mu jàpp ca benn ñu ne ko nag ñett ñi ñetteel bi mu ne waxu yow tànnalee ko ne ko fi saalisa ci aj ñetteel ja moom je saa yi bi mu jàpp ko ca soog fekk dégg ngeen mu ni wa illaa mooy yemoowuñu buñ yemoowuñu fekk saalika naka noonu ñu waxoon rek lay doon ci war ci ñaar ñaari gàtt ñi ya bu ñu bu ñu bu ñu tàppee mu mat ñu seet li gën a néew ak li gën a bari li gën a néew mat na nisaab wala matul nisaab ila axir yi ni mu ko waxee woon rek ko dalika mafhum de ña nga mu ne wa illa waaw fekk daal waxtu bi ra xalaat may fat na si rabet ci aji ñeenteel jeex maanaam daañu xalaat ci gàtt bi nga xam ne ñeenteelu gàtt la wala juróom wala juróom benn kulli mi atin ci bépp téeméer bu nekk ñu seet ko bu ko defee ñu seet ay bëy yi ñoom rek compté leen seet xare yi ñoom rek compté leen seet seeni desir tàppe ko bu ko defee benn téeméer bëy bu nekk nangam war ca bu dee juróomi téeméer yi bëy ñu fab juróomi gàtt ci bëy yi seet nag yi xar yi bu ñu dee ñaar téeméer wala ñeent téeméer nu fab ca lu toll noonu loola ba noppi ku ne lim desal kee ñeent juróomi téeméer loon ak fukk ak juróom kee juróomi téeméer la woon ak ñaar kee juróomi téeméer la woon ak ñaar fukk ak juróom ñu boole ko bu ñu koy génnee nag li ñu boole nga xam ku ci ne génne nañ ko ba mu def seeni desit ñu tàppe ko bu juróom ak ñaar fukk juróom ñu ñeent waaw waaw buñ ko tàppee génn nag asaka yi ci li gën a bari ndax li gën a néew bu fekkee ne mësul te misaal comme ni ñu ko misaale woon ca la passé rek dégg nga mu ne wa fi arbaina bi ci ñeen fukk jaamuusan ci ay jaamuus wa isrina ak ñaar fukk baqaratan ci nag du baqara daañu génne min huma li liy war ci nag kañ la ci asaka di war fanweer li ñu koy génne lan la ñu war a génne tabiata moo ibnu afir wax ajlun tabiun fi salaasina baqar musinnatun fi arbaina istatar da ngeen koy mokkal de mooy tax bu ñu lu ñu wax rek ñu dal di xam ci nuance yi baax na trop baax na trop am borom yooyu rek yëpp ngeen di xam ñu leen ko laajee waaw ñaata nag ñaata nag ñaata la nag di am ñu génne ak sax su jógee nag moom fekkee ne jàng nga mat ni nuance yi dégg nga وفي أربعين جاموسا وعشرين بقرة منهما ومن هرب كل دون بإبدال دي خنا ألف دال بي أمر ألف سنة في دفع دفع في دفع دفع بأبدال بإبدال مبان ومن هرب كل دون مدوى بإبدال ماشية في وقت ndoxteef marché bu ñu ko waxee rek mooy xarak béy uxi sa jàppeef ko bi zakkaati xaa ca ca asakaam wala qabla al xawli doonte dafa doon daw doonte at mi ayeegul itam alors ñi ci wax dëgg la nan dégg nga dafa dem jaay ko jënde ko nag nag yi mutul mutul kii mutul asaka maanaam li mu am ci xar asaka waat na ci mu seenu ne kat ñaari weer wala ñetti weer moo tee wala weer moo tee ñu jël si saa yi bi ñëw jàpp si jël si asaka yi mu ne ah su ma ko jaayee jëndi ko nag bi du mat fanweer fanweer daal def noonu dañ koy dal di jàpp ci saa si bu asaka ji war a guddi itam ñu dal di seet lu mu waroon a génne te bu mu dee gàttee ñu fay ko dégg nga wala qabla al hawli alar ji ci wax ji gën a lan xam ne alar ji alar ji gën a lan bi fakkan bu banaa mu banaa la de wala ma banaan waaw banaa jokkat na fii raaji at ci gàtt bu di aji dellu si jëm si moom bi ayibin ci sabab bi ayib xam nga dafa jaay kii bi wane waxul ayib ji ni ayib ngi ci borom ki ko jënd dem bis ayib ji mu delloo si ko daañu ko kontaale ci asaka fekk ñuy natt asaka ñuy wàññi daañu ko wàññaale aw fal sin wala dafa fàllas dégg nga ki ko jëndoon dafa dafa xayit ba ñu ko am fekk nag mu bëggul njëg bi dañ ko koy delloo si ah amul lu mu ko fayee ndax alalam léegi dañ ko wax dañ ko arrêté léegi dara du génn ñu delloo ko ci boor kii bi buñ ko ko delloosee na muy def wañaale ko ci asaka ji ah dégguleen dégg waaw moo keñ leen waaw kañ mu wax mu ni mu misaal ci ba tey ci mi nga xam ne dañ koy delloo si jàpp asaka ji mu ne que mub dili marchéti naka aji watte ji marchéti tijaara sinde ndox téefal yaxantu nga xam ne mat na asaka dégg nga mu ni wa in doona nisaab yi doon te yéesoon na nisaab mu watte ko nga mub dilim bi ay nin ci kee dégg nga nga xam ne kee ñaar fukki dinaar wala ñaar téeméeri dërëm ca dërëm yooyu dërëm yi dañuy wax ne diqani yabun gisayum xam nga dërëm dafa am yezid yaag muhammad yaag ila axirihi de bu seetee dërëm yi nga xam ne bu ñuy jàpp dëye ñuy jël dëye ci yéefar yi nu not yooyu dërëm la ñuy compter ak dërëm yi nga xam ne ku ci fat ñeent ak ruboo ñu war a dagg sa loxo ak dërëm yi nga xam ne ci la ñuy compter ñeent ak français yi maanaam bu di dee ak sëy ñu tënk ko diqani yabun giseyum dëye ak dagg loxo ci sàcc ak nikaa bu fukki dërëm ak ñaar yi mooy wecc dinaar bi bu fekkee nag galak la maanaam impôt la ñuy fayu mu ahaduna yi maanaam sumi yi wala ñuy génne asaka fukki dërëm yi nga xam ne mooy mooy yem ak dinaar ci dërëm yooyu lañ koy lañ koy calcul léegi nag mu ne bu fekkente ne gise yum di xani yebul bi bi mooy diyeetu xa bi mooy xap xap ul yedi fi sarkati ni bi mooy nikaaxu gise yum giseetu ak zakar bu dee si demoon lu mel ne kii rubu dinaar bi ak sakkat ba xam naa
waaw mat bu duñu benn nag mën nañ ko war nañ ko seet nag bu dee ko dégg fëq bi na xam ne duñu benn te itam affaire mëhru yooyu ñun ñaa ngi ci jëfandikoo yoo xam ne man te te sama xel ndax can liñ ci jublu woon mooy na jëriñ ki ñu koy jox na ko bëgg wala sër wala lu mën a kii daal lu mën a jëriñoo daal tuum si buñ ko loolu nag buñ ko seetee léegi ñii def ay fan ñetti téeméer rek yu kenn xamul du dara xanaa daal six mille francs daal yaakaar naa li gën a néew war na six mille francs au moins ñoo ngi fan
bi ay nin aw na wax nga
waaw climatique tijaat moo indi na nisaa bi jëng moo tax ko bi ay nin xaw na waxee wala xeetam wala wu ni si donc daf koy consommer léegi itam dégg nga ka mujj li ma seetin nañ ko ci la ko misaal ci la teel a delloo ka nisaa bi xiniyatin naka noonu nit nisaa bu loo xam ne pour dañ koy woomloo rek dégg nga moo xam ay gàtt la wala déet nga dem watte ko nag kee wala nga watte ko beneen beneen jur boo xam ne ci xeetam la bokk ah dañuy dal di koy jokk ca cosaan la rek bu at mi dellu see ñu dal di lay jàpp asaka wax meloon ne ki doon daw doon
jaare ne rek nga xam ne dafa amee jur boo xam ne daf koy jaayee ko jënd koy jëndoon di dem di ko jaayaat pour am ci bénéfice dégg nga léegi nag mu daal di koy moom changé ci diggante bi nga xam ne asaka mu ngi ko war a asakaat mu changé ko moom itam bu ko changé doonte mu def asaka yëpp dañ koy jàpp mu génne ko mu ne in kaanat misaaban bal wa in kaanat doona misaabin bi ay nii mu war mu watte ko wuru sa xaalis nga xam ne kon ñu seet ko asaka waru ci waaye daf koo changé mooy mel na ci doon doore dégg nga mu daal di koy asakaal doona misaabin masalan mu misaale ka ashrina dinaaran ñaar fukki yu door yu wurus wala ñaari téeméer yu dërëm nga xam ne jur bi ñu jëndoon di ko jaay mu changé ko loolu waxuñu jaay rek jaay ko daf koo changé lan mooy différence bi ni mu ko changé te waaw wecc ko wecc ko nan la ko tey jaay ko nan ngeen ko mën a déggee ñu ne jaayi ko parce que dafa joxe ay gàtt ñu jox ko xaalis wala wurus loolu lan moo ko tegu tegu ci diw bu jaay ñu ci jox rek
loolu ba tey échange la
waaye ñu mënuloo xam ndax loolu lañ jàpp diggée wala déet nan la ko mën a changé te buñ ko tuddee njaay
ndax trop yooyu rek daan def
trop du njaay njaay njaay tay la dama waaw tay la mën na nekk
maanaam sart njaay bi du jaay ma ne bu fekkee dañoo dafay koo jox ñu jox ko ci dugalu sart njaay
yaa ngi so jógee nga ne yow yaa ngi jógee ci mbir mi de waaw jaay mooy lan
jaay dana am àq
jaay dana am àqatu li ci dana am àqatu jaay naka lay waree bi nga bi nga jaay nga moom
lépp bu dul jaay jaayam léegi seet nañu ne jaay gaa am na ay charte yoo xam ne kooku mooy charte si xala moo di li ngay jaay na na na dagana moom na laab na nga ko xam fi nga koy jaay xam ko yooyu mooy charte jaay mooy waaye kooku surub sixatin la mooy tax njaay mi wér nga xam ne bu njaay mi amoon it te yooyu ñu seet ko ñu xewul njaay mi dëgul waaye ki ma ki nan laa lay jaayee ba nga xam ne njaay mi war na léegi dog na jaay waaw damay jaay lii nangam laa koy jaay ah nga ne jënd naa ko jënd naa ko jeex na dox na léegi sañatoo bàyyi yoon daal wéer na njaay mi sañatoo bàyyi léegi nag istiqaala mooy nga ñaan ko yow nga ñaan ko rek mu mu jéggal ma bàyyi ma bañ a ciy jënd waaye yow sañatoo ko bañ a jënd moom bu ngeen demee ci yoon bi bu ngeen demee ci yoon fu ngeen mën a dem moom yëf sa yëfa jaay naa ko jënd danañ ko danañ ko danañ ko gis ci yëfala saani ak bi ukkahu benn dafa ne jël naa ko wala mu jël jàpp fab rek te yaay ne du fab ay jëpp la ko waxoon ci la droit déedéet déedéet déedéet daf koy ñaan rek mu may ko quoi bu dul loolu xam nga xàcc la wala fi wax waaye loolu du xàcc wala fi li ñu def na fekk ne am na ayib jum ci xamul woon loolu ko woon manque mooy li ñuy waxoon rek sart yi matul bu boobaa njaay mi day firi ko du xàcc waaw maanaam xàcc ci wolof loolu la ñuy wax xàcc. maanaam xëy na ñoo xam ne ñu ko mën a jënd waaw ci tool bi ci léegi ci tool bi ñu rañ ko war a tool bi ñu ko war a waaw léegi ci tool bi ñu rañ seen na ni tool bi bi nga génne affaire bi def sa biir bi moom moom fay mu génne waaye tool bi baaxul waaye moom affaire bi génne waaye su biir kër gi su biir bi mu tax man da muy def léegi ndax te yow yoroo daal di yoo ko fay ko foofu laa ci génne ba mu taal léegi bay nga ba mu ba mu ñor nga war a génne asaka léegi génne nga asaka wala ko la génne boo ko da nga war a génne asaka ko war a fay waaj seen ngeen ne léegi asaka ji léegi bu génnee waaj bi fay ko waaj bi ñu ngi taxaw léegi lii nga waxante woon waaw ma ne day laaj loolu dem lay
léegi léegi da ngay génne asit ji ba noppi waa ji li mu ko ameel moom bu ñu seetee mu manqué da nga koy mottali ndax moom daanaka bor la boo ko ameel moom day indi waaw waaw wax ne alal jàmm waaw waaw waaw waaw moom alale asaka ji mooy njëkk a génn moom ba noppi ndax bor moom mën na toog nangami at sax nit ki mën na dee ñuy fay ay borom waaye asaka ji moom dañ ko war a génne balay dara xew moom asaka ji moom di ko dal di wax Mhm. Mhm. ah mu mu waaw waaw am na bor nag yuy rotal asaka ak bor yoo xam ne du rotal asaka Mhm. am na bor yuy rotal asaka ak bor yoo xam ne du rotal asaka man sax foofu li may laaj mooy naka la mbay bi ñu matee ba ñu war bu génnee asaka mënoo cee fay surtout
ndax faw asaka yi rek nga mën a génne bu fekkee ne mbay mi buñ ko seetee lépp mu war a tolloog fayu ajir bi yow perte nga yow kon yow mbay mi da ngay faxasu amuloo ci dara bu boobaa nag kon faw euh, ajir bi nga doon liggéeyoo moom am na loo ko fayee ndax boo génnee asaka ji kon li ci mo- li ci des lépp moo ko moom li ci des daf la koy topp bu fekkee ne ndax kooku du bor duñ ko jàppee bor waaw fay la ko waaw ku ku la liggéey la war ko fay la waaw ujira la ujira ujira bokkul ak day mu mel ne ku jël perte la waaye loolu nga xam naa kaa bu doy waar bu raar lay war a mën a doon waaye léegi su fekkoon da nga am sa ay bor ni euh, bor boo xam ne jotul ak mbay mi dara yow dem nga gis kuy jaay ma ne fonam nga leb ko dem bayi ba ba pare euh, li nga yor mat ni sax léegi yow da ngay fay da ngay joxe asaka ji ba pare soo ko dem lijjanti ci boru jàmbur ba tey waaw waaw am na ci kanam ci kii boo xam ne bi ñu wax naan ñu ne ni ñu ko doon jëlee dafa dafa ma frappé woon ni ñu ko kii di jàng sëñ si Sadio ma ne waxal jaam yàlla ndax ñàkk a rotu asakay kee ci bàyyi ci sababu dundu doom boo xam ne xaw bi àttewul waral ko ndax in taqaddama lim jiitu na yusrun am koom am laa wala déedéet taw bi daal am na si ñaari jàmm xam nga ñiy rotal asaka daañu ci àgg ci kanam. ñu ñoo ñoo ngi ci buntu kii zakat yëpp da ngeen ko ci gis bor yi koy war a rotal ak yeneen yëf yi war a rotal asaka asaka it asaka yi mbay asaka yi marché asaka yi kee ki nga xam ne dafa génne asaka jox ko xam ne mu juróomi téeméer mu wër bi lebaat lebaat ko ko di ko yëgal ndax ko am na
moom dafa ko waroon leb rek waaye bu bu ko lebaatee kay asaka yi moom joxewul asaka lépp asaka yi joxewaat ko te nga xam ne kooku xëy na bu fekkee ne koo xam ne dana ko rus ba faaw bu xam ne bu ko laaj ëllëgee dana ko lebal moom moom joxewul asaka kooku génneegul asaka mbaa def na ko woon
waaw dañ ne dafa dafa juróomi téeméer asaka bu noppi donc bu delloo ko mu dikk rek bàyyi lewal na juróomi téeméer rek lan
ah waaw bu xamee ne du asaka xam nga di asaka ak sarax dañuy bañ ko ci dellu ba lekkaat dañ ko nire lekk xaj bu wàcc ba pare lekkaat ko dañuy wax ne xam nga ci mag ñi kuñ fi ne woon waaw ndax jigéen mën na jox borom kër asakaam mu ne mu fayay borom maanaam du ko defaat ci dépense bi lekk ak dara mu ne mu fayay borom man fi ne muur gi lay xam ma jaxate gala mu ne ko waaw góor gi ndax jigéen mën na jox asaka borom këram mu ne mu fayay borom danaa mu mel ne dañu mel ne sibo yi danaa bi muy muy nelaw ñu ne ko eh kam kam hi harfu harfu ziyaada mu ne saaltumoniha saaltumoniha an seet siin alif laam taa miim waaw ha alif saaltumoniha boole ak pël bi doon nelaw nga xam nee ñu nee na baat bu mu ko waxee baat boo tàmbali si alxuraan rek mu àggale muy nelaw ñu ne ko eh min mu ne jàllaa bi de na génnagul ma nag tam nelaw rek ma xam ne mun jeexal bi fii nag sàcc nañu ah mooy ñaari sàcc yi doon dem ñu dégg kuy tari alxuraan ñu taxaw ñu tari ba àggale ñu dem waaw kooku doon wax sàq li mu doon nekk di bi ñu àggee nag ba sàcc ba ñibbi nag ñu ñu tàmbale ñoom it di tari di tari di tari ba ak ci fii fii rijaalun yuhibbuuna an yatatahharu kii ne fii fii mu ne ko no benn fii rek la daf ko waxaat rek ñu ko yëgis ñaari fii dafa ne fii fii di jaanu ñu ne nañ ko laaj ñu ci waaye yow li nga doon wax booba biib da nga ne lu jiitu sa waaye bu boppaay bi abadan la fi jistal xaqan taquma fii fii rijal xaq an taquma fii fii ñaari fii la wala benn fii rek da nga koo dem kii dama ne ko ñaari fii la mu ne moom benn rek la da nga koo répété mu ne waaw yéen fu ngeen doon ak ñitu lan ngeen fu ngeen jàng alxuraan ñu ne ñoom mosu ñu jàng alxuraan xamul sax lu alxuraan dama dégg rek nga di ko wax mu ne te mu julli marché naka noonu aji watte ji ndox te xam nga mu jul lu doon wax léegi change boobu mën na am te duñ ko mën a jàppe njaay ci su fekkante ne waa ji daf la liggéeyal ci kaw nga jox ko nangami kii nangami xar wala nangami béy nga yaa ko moom ba noppi nga joxe ko au lieu nga jox ko loolu nga jox ko dinaar yi ay dinaar wala ay këram xam nga changé nga ko léegi léegi moom moo ko moomoon mënu ko waroon a fayee nga ne ko nga ñëw ma ma fayee la léegi ay dinaar bañ la jox xar yi est-ce que comprendre
te dama doon seen ndax amul weccee ci biir njaay jaayaat ko ci biir
xam nga fekkoon ne pas-pasu njaay la lay lay taxaw waaye léegi lim gën a niru ma ibdaal la ak kii wosoo ni ñu koy waxee ci sif tëjë sif tëjë mel na ko tey léegi yow yaa nga dëkk Dakar da koy dem léegi am nga fii ñaari saaku ceeb da nga ko war a kii transporté ba Dakar man am naa foofu ñaari saaku ceeb yow siyaam nga amee man siyaam laa amee ñu ne waaye yow kon au lieu nga di ci sonnante nga jël sama ñaari saako yooyu foofu ma jël nga jox ma sa ñaari saako yi fii dégg nga man sama au lieu may jëli ñu sonn di jëli sama ñaari saako yi Dakar muy saf tëjël kooku tuddewuñ ko njaay nga jàppe jaay waaye ba tey kooku moom mën nañu échanger ko échanger ko kii borom borom gàtt yi ak dinaar yi bu fekkee ne kii dafa am gàtt yi kii am dinaar yi nekk fële borom gàtt yi foofa la dëkk te dinaar yi moo ko gënal gàtt yi borom dinaar yi tam gàtt yi moo ko gënal dinaar yi dégg nga te moom du ko yóbbu fenn mu di ko xakkal fii la amee fii la ko amee fii la ko soxlaa kee moom dinaar yi bu ko bu demee foofa ñu jox ko ko moo ko gën a noppal mu di ci jiital xar yeeg yooyu kooku ba tey échange la mooy saf tëj wosoo nga ko ba tey kon kenn mënu ko tuddee njaay waaye wosoo maanaam mooy mooy échange bi nu wax su arrangement daal seen diggante arrangement comme bi ni marché tu tijaarati naka noonu kon aji changé ji ndoxteef yaa xam dafa amee ay xaram ak yu bëyam di ko jaay ndax marché bu ko waxee rek mooy ay ay chier ay gàtt wa it doona nisaa bi moom itam dañ koy jàpp ci mu donte yées na nisaa bi dégg nga mu mu mu mu dil ko mu changé ko bi ay nen aw naw exa wala naw exa mu dellu ci marché dégg nga day asakaal loolee mu ko watte woon tey donte itam istihlaak la woon maanaam donte daf ko waroon a daf ko jubloo rek maanaam marché yi daf ko jubloon a lekk dégg nga léegi xëy ma ji war ko mu jox ko boroomam fu mu tollooti waaye waaw waaw kanisaabin kanisaabi xiniitin mu nira la ci ba tey ni nga xamee ne ci at mi faw mu dellu si mu dellu si mu ne ka nisaa bi maasiyatin xiniyatin naka noonu bu fekkee ne jur gi itam sax léegi daf koy kee dafa ne woon listihlaaki kii daf koy denc bàyyi rek ci këram ngir ngir woom loo ko dégg nga mu watte ko loo xam ne ci kee mat na nisaab wala yeneen maasiya ba tey bëyeeg xar la comme nii suñ fi bëyeeg xar kooku itam dañ dañ koy daal di jàpp mu asakaal dañuy seet li mu ay changé kañ la ko moomoon ci at mooma bu fekkee ne bu ñu tollee ba mu mat at mu asakaal ko wala bu fekkee ne fii mu koy defee mat na at mu asakaal ko ndax dafa dañ ko nirale ki doon daw ba changé ndég tax dégg ngeen ko mu ne waaye laaj bi mu xaalifa bi ci ak yéen nag bu fekkee ne daf koo changé bu dul xeetam ni ki tey ay gëléem la ko changé dégg nga kon du ko jokk ca atum cosaan ma day fi mu ko échangé lay compté ba mu dellu si ca déwén ba mu soog ko asakaal aw raajiatin laa bi mu xaalifiha aw bi aw raajiatin wala boo xam ne aji dellu si la bi xaalatin ci xàccee iqaalam mooy dafa ko jaayoon jaayantam ba mu yàgg mu kooka rëccu mu xam ne rëccu na man aqaala axaahu bayatahu aqaalahu laahu asratahu yowmal qiyaamati comme qala alayhi salaatu wasalaam dafa dellu si daf koo jaayoon benn mu dellu si ayib wala mu dellu si nangoo jéggal kooka te rëccu njënd na ba tey bu ko defee daf koy jubale bu fekkee ne daf fa fekkoon cosaanee te ci la jóge woon moom du ko jubale kat ba at mi dellu si dañ ko asakaal booleeg loola la aw ay nan wala mu jaayekee bi maasiyatin ci léegi dafa jaayoon maasiya jënde ayn léegi mu jaay kee mu mu wattee sax laay wax mu wattee kee jënde ko maasiya mu jënd ko nag ngir yaxantu wala mu jënd ko ba tey ngir woom loo rek mu jënde ko daal kee la kee la jaay jënde ko xam nga ne kon dafa sa dafa wuute wurus ak xaalis bi mu amee woon ak jur gi mu jënd gi mu ko watte léegi jur gi day toog ba at mi dellu si ndax bokk du xeetam ndegam yeneen xeet woo xam ne ndundat la mu ni fi gëleem wala nag sax lay jubale rawatina nag bu dee loo xam ne sax nag bokkul ak moom dara waaw ma fu mu de mu ne waxul ak taa ul machete way jaxase seeni jur seeni gàtt ka maaliki li nga aji moom la jenn rek fii maa ca la nga xam ne waja ba war na min qadrin ci kem wasinin ak at wasinhin ak xeet innu yet ndem yéeneef na dajale dara dañuy bëgg boole nga am fukki nag ak juróom mu am fukki nag ak juróom ñu dajale ko dafa mel ne lu kenn moom rek parce que daf ci dal di wax fekkee ne dañoo yéenewul nga xam ne du caa génn rek nit ki dafa indi teg fii ay nagam muy place boo xam ne ay nag ne kee daal di ñëw moom itam indi ay nagam rek teg fii ñu nekk kooku yéene wu ñu boole kooku kan kan ku nekk boo mëtlewul doo génnee asaka waaye bu fekkee nag ñoom ñoo ñoo d'accord jublu boole bi yéene ko ñu boole seen yëpp boobaa day mel ne kenn nit ko moom bu matul ñaari kenn ku ne matlewul nisaab itam dañ koy jàppe ne rek kenn nit ko mat na nisaab kono
kon sulata bi dafay mel ne société waaw comme société waaw société bu ñu asaka war a rek kenn ku ne boo amul nisaab bi buñ tollale buñ tollale wut sam dañuy delloonte ah dafa mel ne benn kii kooku seen affaire lay doon ñoom waaye kii bu moom saa yi moom bu ñëwee rek bu wàññee ba mat rek rek daal di jox li mu naan baax na min qadrin wasin min boobu wasin fi innu yeeg foofu la kem bi ak at yi masal bu ñu waxee tabir ak musim naat yooyu yëpp ci lañ ko dañ koy seet yëpp ak xeet wi bu dee xeet yoo xam ne di su ko tàppee ni ki gëlee mag nag wala nag ak marché bu dee xeet yi ñu tàppee ñu tàppee yëpp dañ ko ci seet comme Malick Wahid rek ñu ngi koy seet ci yooyu
yëpp ay action waaw xam ne dañuy ëppante ay part
waaw action moom daanaka séddoo nañu waaye ñooy boole liggéey de fekkente ne njënd mi li ñuy jënd kenn du seet ci as ak action yi kii jël ci nangam suuf ci as lu dañuy jënd rek kenn kamaali kenn waaxee dina rek waaw asaka bi ñu ngi béy ba mu ñu ne duñu duñu ko parce que dañu koy dindi xaalis waaw bu ñu xeet ak natt bi lu ci gën a lu ci gën a yoon natt bee ko dañu wàlle bu dee asakay dog muurum koor moom xam foofu dafa am xarab bu tax ñu di ko def moo di dañoo bëgg bis bi ku rekk am jot ñi nga xam ne ñàkk nañu duñu jóg di dem di lebi wala ñu wuti lu ñu togg ak yooyu dañoo bëgg ñëpp seen xel dal ñu mën a jublu ci julli gi dégg nga ak toog noppalu ci sa kër ziyaarante waxtaan dëkk kooku moom boo ko joxee xaalis moo gën a noppal kii nga di ko joxe ceeb mën naa am ceeb bi bari mu dem di ko jaay bi ci jëndaat lu mu jënd dëwlin lu mu jënd ay jën ak lu ñu ko xam yooyu waaye bu dee nag mbay mi nga xam ne moom la génne asaka li gën mooy nga natt ko génne génne boo amee xaw xam si tamit nga génne
te ñu ko bàyyi ñaa ngeen ñu ko def waaw comme dañoo duggee tam waaw waa ji dafa waaw waaw ak jur waaw waaw charte yi ñu waxoon fekkee ne xam nga waxuñu kon jaayu ko dafa koo changé changé bi ñu waxoon fekkee ne dafa koo changé ci xeet dafa bokk ci xeet wa wala bokkul ak li mu ko changé du xeet wi bu dee jur la ak mu ak mu changé ko urus sa xaalis bu fekkente ne daf ko doon woom la wala daf ko doon def istihlaat te mu mu changé ko loo xam ne du xeetam daf koy jubale maanaam dafay bàyyi ba at mi dellu si waaw.
man day jigéen bi amoon tey oram daal. mu gis ne or bi daal kii mu mu jaay ko jënd koy xar.
waaw di ko sàmm. maanaam léegi dafay jar de ay du ngeen sàmm xar yi.
waaw léegi nag ba weeru des.
ba weeru dellu si waaw kañ soog ko asakaal waaw ndax bu fekkente ne nag kee googu nga xam ne daf ko doon woomloo nga xam ne asaka waru fi takkaay asaka waru fi fekkee nag daf ko feete ko moom ngir tijaara ngir yaa xam daf ko daan jaay ko jënd wala jaayagul waaye dafa gis ndax dafa gisagul ku waxaale waaye jaay jënd la ci loolu kon at man ko moomee moom dana ca génne asaka génn bu fekkente ne itam kii bi ñëw na li mu ko jaayee jëndee ko ay xar wala yu mel noonu loola moom faaw mu kii bi jël ndax asaka nga alal ji ba noppi kon bu ko changé la nit asaka bi ci war a ko dootu bëtt mu dellu seesee kon mu xaala mu xaala ko boobu tijaar rek ko moom.
waaw bu fekkee ni ku am loola moom day daal di génn.
waaw waaw bu fekkee nag change change la moom dañuy seet xeet bi xam nga change ak njaay du ñu benn misaal la ñu amoon na benn misaal ci change mooy arrangement boobu
waaw dama daal ci abir sant suñu njëkk ni maanaam kenn ak jigéen loolu bu dee mu fukk ñaar ko ci ci ci
يقول هو حرم بسم الله بسم الله جلني بسم الله من كل كسات كيف ñoom xorrum di dor muslimin di jullit malak nga xam ne moom lañ nisaabal lu mat nisaab bi xaw lin sa ak ma mat nga dañ ñëwaan bu fekkente ne nit ki ñoom ñaar dina am jur nga xam ne am na foo xam ne fa àggee asaka war ci ñu boole nga xam ne law xaas yi ñuy wax wax dafa bari mooy diggante yi nga xam ne ci la asaka di taxoo nga xam ne boo amee nangam li ngay fay moom ngay fay di ko fay asaka di ko joxe asaka booba ngay àgg nangam léegi nag loolu nga xam ne mën nañoo boole ba kenn ku nekk li ngay fay gën a néew wala li ngay fay gën a néew ci sàrt boole bi nag ba nga xam ne mën nañoo daggale seen jur ñu jàppee ko ne lu kenn moom di génne asaka ji charte boobu bala ñu koy nangu xam na indi wet fekk dañuy yéene woon boole bi nga xam ne du daw asaka tax boole bi dañu fasoon yéene def seen yëpp ñu benn te fekk nit ki liñ ku nekk morom di gor ndax ci ba ci ñu moom di am ko ñu moom amul amul alal ci ko moom moom comme moom alal kon moom duñ ko kontewaale fekk ku nekk muslimin nga xam ne kon ku boole sa alal ak du yéefar gannaaw yéefar asaka waragu ko ni ko xam ne ne julli waragu ko ndax charte bi mooy l'islam te tuubul jullee ma ko ku neena yam asaka ma ko ku neena yam koora ma ko ku neena yam kon mu nekk jullit ba noppi moo tax ñuy wax ku ci nekk nag am na lu mat nisaab nga xam ne boo amee koo xam ne amul nisaab bu ñu boolee boole ga du am njariñ ndax ki amul nisaab lu yàgg-yàgg atte bi di mën a daw ci kawam fekk it moom weer wi ñu ko moomee woon ñu ñu boole ci dellu si wajtamaa te ñu daje ñoom ñaar ñu boole seen alal bi mil ci ci moomee ci moomeel oman fa atin wala njëriñ ñu bokk ko moom wala ñu bokk njëriñ bi buñ seetee nag moomeel ak njëriñ ni ñu ko waxee rek juróomi charte la am si la seen ci la gën a mooy min maa in ci ndox ñu bokk fu ñuy naane nga xam ne ni ñu jaxasi boolee seen ngir du caggee ni kii day jëm fële fële lay naane bi kay naane bi fële def na la dañoo teqali ko waaye ñoo bokk fu ñuy naane bi wa mu raaxin ak goorowaay fu ñuy fu jur jii bu ñu wëttee ba ñëw fu ñuy tëdd fu ñuy goor digg ba cëg wala yooyu daal wa mobi dina ak fanaan si ñoo bokk ci fu ñuy fanaan waraain ñu bokk itam ci leen di sàmm bu ko defee nag ñu ñu xam ne ñoo bokk njëriñ yooyu ñoo ko bokkale ba muy juróom li koy juróom bi isnihima te fekk du sàmm yi rek ñoo dajale seen bopp na fekk na ñi moom alal yi ñoo wut seen sàmm muy benn wala muy ñaar ñu boole ko nga xam ne ñoom ñaar ñëpp dañuy fay loolu mel ne kenn isnihima wa faxlin ak kuuy bu góor bi ci nekk ñoo ko bokk juriftin nag ngir jàpp ndagal bu fekkee ne charte yi matal nañ ko léegi ñun nangu nag na léegi ñii dañoo boole seen alal ba mu mel ne genn alal bu nu seetee kon lii war ci bu ko kenn moomoon ba tey loolu lañuy fay ñoom ñaar seen boole bu ko defee danañ nangu nag masalan daje ci boole lañu mu ni waraaja dellu toot na almaxuusu kañu jàppee gàttu asaka ba ñuy génne asaka kañ ko jëlee minu ci alalam minu ci moom dana dellu ca kaw ca sharikahu kam bokkaaleel binisbati adadayhima ci kem seen ñaari lim comprendre ngeen de nga xam nga bu ñëwee bu fekkee ne benn gàtt ci war nit ki ba mu jógee ci ñeent fukk ba ci téeméer ak nit ak benn benn booba la ci ñaari gàtt yi war bu fekkee ne benn gàtt ci war ci alali kenn nga ko ci mën a jëlee duñu xam ko mu ci moom day saa yi moom day ñëw rek jël bu ko defee ñu seet nag xaymay gàtt ba te delloo moroomam ñi si fii xaymay gàtt dégg ngeen ko de mu ne wala wen farada doonte wéetoon na itam waqsun law qaas li ahadihima ñeel kenn ci ñoom ñaar du tee dana ko delloo genn wàllu xayma li ñu bokk masalan bu fekkente ne kii dafa amoon ñeent ci gàtt nga xam ne benn gàtt ci war ba bañ ci yokk ba ma ñu ab téeméer ñaar fukk ak benn léegi ñu dal di indi juróom benn nga xam ne kon buñ ko seetee benn gàtt bi ci war bu ñu boolewul woon itam lu mu dox bu ñu boolewul woon itam benn gàtt bi lay fay benn benn gàtt lay joxe léegi nag ñu boole te du am changement du tee danañ dellu loon te ñoo koy war ci seen alal ñoom ñaar ñi ci lañ ko war a jox dégg ngeen ko de fil qiima ca qiima def mu ni kata awwali saa yi naka noonu taawiilu jaraaf bi mooy fonctionnaire bi wër di dajale asaka yi di yóbbu bëcc maal mu taawil al axda jàpp lahuma ñeel leen ñoom ñaar ñëpp aw li ahadihima wala jël ko ci kenn wa zaada te mu ëpp mu ëpp li la xoltati ngir jaxasoo ngir jaxase bi bi nga xam ne dafa fab du ëpp moo xam kenn ki la ko fabal mu dellu ca kacca des ñu séddoo maanaam la ëpp musiba ma wala ci ñoom ñaar ñëpp la ko jëlee ci kaw taawilu jaraaf bi dafa fekk ñu am téeméeri gàtt ak ñaar fukk wala fukk ak juróom-ñeent mu ñëw jël ñaari gàtt mu taawil ci taawilam ñàkk xamam jël ñaari gàtt léegi benn gàtt lañu waroon a jël la waroon a jël ñoom ñaar ci ki ñu ko jël ci alalam fay genn wàllu xayma bi léegi mu ñëw jël ñaari gàtt bu jëlee ñaari gàtt itam wala mu jël benn gàtt ak genn wàll lu mu ci mën a jël rek te nga xam ne laaxas ban du fëkk maanaam bu fekkee ne dafa jaay doole rek ñëw fab nga xam ne moom lañ ci daxas bu mooy daan jël bu boobaa ki mu ko jël ci moom musiba ma ne kenn du ko delloo waaye bu fekkente ne dafa taawil wala ñàkk xamam yooyu dañuy dellulante fekkee ne ñaari gàtt ñëpp ñu ngi ko jël ci alali kenn kenn ki dana ko delloo gàtt ñu séddoo musiba mi waaw waaw waaw kañ mu jël ci ñaar te waru ko woon a jël ci taawilam nag déedéet balay perte nga xam ne taawil dafa ñëw rek xam ne xëy na benn la war a jàpp mu dëng rek dal di fab ñaari gàtt yóbbu moom moom buñ ko yëgee ah buñ waaw buñ ko buñ ko mënee jàpp waaye bu fekkee ne dafa dem ba noppi ñoom ñu gis ko ne jël nañ ñaari gàtt te ñoom mënuñu koo jàpp wala buñ ko gisee itam mu weddi ko wala yu mel noonu xam nga kuy xas bu kay kuy fëkk kay doo nangu ne maa ko fëkk bu ko defee nag ñoom dañuy séddoo musiba mi bu dee bu dee fëkk moom ki mu dal ci moom mooy perte waaye bu dee dafa taawil ñooy séddoo musiba mi wasaare te mu ëpp maanaam mu dolli maanaam mu ëpp dama tëddee li nga xam te jaxase gi waaye laa xas ban aw lam yakmul aw wala mu jàpp te wala mu yakmul matul lahuma ñeen leen ñoom ñaar nisaabul naka noonu ñoom ñaar kii fukki juróom la am kii ñaar fukk ñu boole ko asaka waru ci ndax li ñoo fab benn mu ni wadu samaanii na borom janam juróom ñett fukki gàtt xaalata comme jaxase na bi naf seha ak ñaari genn wàllam mu jaxaseeg zaway samaani na ñaar ñi moom juróom ñett fukk mu ne kon kal xalit naka aji jaxase alwaahidi bi ci genn xale yi war na ko rek saako lu gàtt aw binis fin aw binis fin wala ña juróom ñett gàttam yi mu amee dafa fab ñeent fukk yi rek day jaxaseeg ñaar ñoo xam ne am nañu juróom ñett fukki gàtt dégg ngeen loolu xam nga kon ñetti way boolee fi nekk mu ngi mel ne kan xalitul waahid mu ngi mel ne kenn ku dem rek boole ak kenn àtte ba rek la ñuy seet li ñuy jàpp ñu seetloo ko xam nga ku njëkk fii mooy wadu samaan yi nag borom juróom-ñett fukki gàtt koo xam ne xaalata jaxate ne bi nesph ak ñaari genn wàllam daway samaan yi nag daf fekk kii amee ñaar ñeen fukk kii amee ñeen fukk muy juróom-ñett fukk moom mu daal di boole fab ñeen fukkam boole kee fab ñeen fukkam boole kee mooy wa xaliitul xaliiti kal xaliiti dafa mel naka kee nga xam ne man la jaxaseel kee jaxaseeg man ñoom ñaar kenn jaxasewul dañu mel naka ñoom ñaar jaxasoo nañu ndax ci jaxasoog kii dafa mel ne ci jaxasoog kim jaxasoog ma fum mooy wadu sama ngi ne borom jawm ñett fukki gàtt xaalata koo xam ne jaxase na alalam di nis fay haa ci ñaari genn wàllam daway sama ni na boroomi juróom-ñett fukk ñaataa ci war yéen ñaar bu seetoon seen yëf bu ngeen boole woon da ngeen am juróom-ñett fukk ñaar ngeen kii nga am ñeent fukk kii am ñeent fukk man maa nga am juróom-ñett fukk bi ma jaxasee kii ñaata la am juróom-ñett fukk ah juróom-ñett fukk lu ci waroon juróom-ñett fukk lu ci war ci gàtt ah benn gàtt ma jaxasee kii itam ñu am juróom-ñett fukk lu ci war benn gàtt léegi nag ñu ñu ne nag wa xaliitul xaliiti kal xaliit mun mel ne yéen ñaar jaxasu ngeen ndax ku jaxasoog ka nga jaxasoog dafa jaxasoog keneen jaxasoo nga ak moom léegi kon ñaata gàtt fi nekk ñaari juróom ñett fukk waaw muy lan cent soixante ah téeméer ak juróom benn fukk lu ci war ñaari gàtt kooku mooy amat mooy kal xaliitil waaxidi muy mel ne que kenn lañu ñun ñett ñi def mel ne que kenn lañu maanaam noonu rek ñoo ñoo tolloo mu ne aw binis fin waaw aw binis fin laa misaal léegi de waaw aw binis fin wala genn wàll faqat rek mu jaxase ak daa arbaina borom ñeen fukk léegi dafa am juróom-ñett fukki gàtt mu dee fekk ko am ñeen fukk mu fab ñeen fukkam booleeg moom muy lan juróom-ñett fukk juróom-ñett fukk yi lu ci war benn gàtt benn gàtt léegi bu fekkente ne juróom-ñett fukk yi boole nañ ci ñeent fukk ak yeneen yi muy doon téeméer ak ñaar fukk ñaata gàtt téeméer ak ñaar fukk rek rek ba tey benn gàtt ndax faaw benn benn dolli ko ci mu soog a changé léegi bu fekkente ne moom dafa jaxasee genn wàllu àllam la fa boole borom juróom-ñett fukk alayhi war na ko moom waajoo jële chaatun gàtt wa ala xayrihi war na keneen ki mu jaxasool moom nisfun nisf bil qiimati ci xiimati xiimati nu dellu ci bi nga xamee ne dafa jaxase ak ñaar kenn ku ne mu fab genn wàllu àllam jaxase yow xam nga boobu waxoon na ne ñaari gàtt ci war ndax ci biir juróom benn fukk la ñaari gàtt ñooñu bu ko defee waaye xam nañ ne moom moo ci ëppale moo ci ëppale kon alayhi shaakum comme ñaari gàtt ci war benn gàtt lay génnee ñaar yi ci def ku ne génne genn wàllu gàtt ndax ñaari gàtt ci war ndax kii ñeent fukk la amoon benn gàtt la waroon a fay léegi mu ngi fay genn wàllu gàtt jaxase gi li ñu ko joxe ngoog man mu nga xam ne nag maa doon wutu muus teqlee sama juróom-ñett fukk jaxase kii jaxase kii te man it benn gàtt ma waroon benn gàtt laaj waaw waaw waaw biir xiimati xiimati ndax delloonte moom xiima rek dama na doon ndax gàtt mënuñ ko dagg jërë ngeen de muy waxare di génnet na asa yi jaraaf bi wala di jëb di donte ci jamono yi bekkoor la nga xam ne tawul kenn amul dara it kañ lay génn dem di dajale bi asaka yi xanaa tuloo ak suraya waxtu nga xamee ne biddi bi dulloo ji mi ngi fenk mi ngi fekk bil fajri ci fajar xam nga ñi nga xamee ne noonu la weer yi mel ci weer xam ni léeg-léeg weer yi dana fekk nit ki jot léeg-léeg mu fàq balay fàq onze heures jot léeg-léeg dana fàq minuit wala muy fàq ba muy fekk suba noonu ci ci at mi la gëlloon ji moom itam di soppi ko dana di fekk waxtu jant buy sot ba di dem day fekk waxtu minuit di dem ba di fekk waxtu fajar buñ seetee nag ci fasal bi mu toll kon ci at mi ci jamono jooju la jaraaf ji di génn ngir dajale ji asaka yi lu waral loolu jamono jooju la gàtt yi di daje di naani ak fi ñuy noppaloo bu ko defee ki nga xam ne ay gëléem la amee te war a génne gàtt mu daal di gis ay gàtt fi saa si mu jënd mën a mën a mën a fay ak ay kii yu bari moo tax ci jamono yooyu itam mooy jamono yi nga xam ne mooy jamonoy naataange ma xam ne daal ci la yëf yi gën a yombee dégg nga naan xam ne yooyu waxtu woowu nag ci la jaraaf bi di génn pour dajale ci asaka yi moo tax mu ne walaw bi jaddin dafa am ñoo xam ne ila xira walaw lu mu ci waxoon ila ila xiraati mazhabiyin léegi kon ci nga xam ne ngi imam Malik donte jamono yi bekkoor rek waxtu woowu lay génn bu dee nag njërum Abu Hanifa dinaan ne bu jamonoy bekkoor ñëwee jaraaf bi du génn jiraaf bi di génn dañ leen di bàyyi ba at mu beneen at waaleykum salaam bu dajalee jiraaf bu dajalee ba tey kii yi bu dajalee nu mu tuddati parce que nu ñu koy def baytul maal ñu di ko def lan ak lan lañ ko war a jëfandikoo ñu ko moom ah ak ñan ak ñan ah ah mooy gan al amilin alaya mooy ñan jaraaf bi ci la ak ñi koy dimbali ñi muy àndal ñi koy bindal ñi koy jiital le jur ji waaw ak lan dàq nañ ko ku ko dàq ku ko dàq Sidna Omar lu tax mu dàq ko dootu neex laa bi ba fi raqaabi mooy lan ñoom nan lañ koy defee loolu mooy lan amatul d'accord mais nan la woon ah mu jotoon waaw mu jotoon waaw alxaari mi mooy ñan ay bon wër na leen ba jiital leen fi sabilillahi mooy lan waaw jàkka ak ak fi sabilillahi rek ba tey ci lan ak teen ak lan am na am na lu ngeen fàtte de bu ñu dee jihaar nag ja gànnaay yi ñu jënd rek ak pasteeg yooyu ñu ngeen def ñu lekk ak waaw te lu sabil mooy kan waaw mu nekk ci réew moo xam ne amul fa kenn ku ko lebal amul fa mbokk ñu ko mën a toppatoo mu xam ne boppam mu ci lekk suñu bopp mu ne mu ne waxoo moom te génn ko saa yi bi charte yu jubin charte war la ñaata charte am bu ko wax ci charte yu jubin dafa mel ne comme beneen charte bu ne charte yu jub am na charte saxa charte yu jub mooy la bu ñu jaar ji saa yi bi ak génnam charte wu jóg la lu ñu ci mën a déggee su génnul du war bu donte bu xawlu bi matee nag ak ñu jeex te nga gisuloo ci bi saa yi warul charte ah warul borom borom alal bi di ci génn ak bi gisul seen ci graf bi ñëwul di laaj ah ah la tax ñu wax déedéet yow yaay sa ay bopp li nga xam ne amul baytu maal yow yaay def nëkk bi yaa koy defal sa bopp yaay def ci tànn waaw ndax li nga ci saa yi bii dafay fonctionnaire boo xam ne loolu rek lay liggéey ci lay dund ñu di ko daanaka dañ koy fay moom daanaka moom salaire la pour moom waaw at mi bu saa yi di ñëwee rek dañuy seet bu fekkee ne amagul at yastaqbil bu ñu ko waxee day nekk ba al amul qaadi ba jeex ba ba saa yi di ñëwee ci rek li ñuy wax mooy charte wu jógee charte war la in kaana ndem am na dem saa yi am na jógee li ñu mën a dana fi jóg wa balaxa te mu jot si mu agsi waaye bu la teggee dox ba mu ne ba jub la xamul ne yaa ngi mooy ko wa su fekkee génne ko xablahu wala saa yi bi dafa ñëw xablahu ci la jiitu ak ayam mooy dina waxoon rek génne wala nga xam ne borom alal bi dafa faatu te saa yi di ñëw te yëpp bu ci am yastaqdimu day jubale alwaarisu aji donn ji ba déen istaqdimu bu ñu ko waxee mooy day nit ba déen mooy waxtu wa jot su doon na alal ji mu teg li mu doon ma tegul at mi at mi ma waxtu joxe asakaam génn ci asaka jotagul day kii ba déen waaw même temps yi waaw te mu tey ko waaw jalgati na ah waaw cheikh bu jub la ko waru da ko génne in kaana wa balaxa waaw waaw waaw waaw jur gi matagul asaka waaw waaw ñu génne ko ñu mat waaw ñu génne ko waaw gannaaw génne bi ñu dañuy génne dañuy dañuy dañuy dañuy matal dañuy fay bu fekkee rek séddoo nañu bu ci amul ñu taas ak saq bi da ngay indi kéwér mu mooy mu ne waaye walaat ba da defu tàmbalee ko xam nga mooy nit ki gaañu na alal gaañu si bala ñu ci génn dara rek bu ñu waxee dañuy moom la ñuy tàmbalee ci bopp alal bi mat sëkk ci la ñuy génn lool li kii nag mu ne walaat ba daw kon defee duñu ko jiital duñu jiital asaka ji daañu njëkk a bu nit ki gaañoo alal mu ci njëkk a war waajtaayam waajtaayam après waajtaayam ah wasiya bi après wasiya dellu soité ci at ma ñaari asaka yi war ak moo tax bu dellu soité at ma ñëw dana ci génn contre nañu xilaafaam ñu bañ a soumettre daal dem yal nañu wut seen ami comme ñu xawaar yi ciy defoon wala ñu nekk fawdal yoone ñoo xam ne dañoo génn ci àll bi daal lu imam bi wax ñu bañ ñu doxal seen dundu bopp nañ ko entendre ñooñu bu ñu leen nee niis daal di seet seen i jur ak yi passé yépp lañ leen jëlal affaire in la ñes amu ndem woote wu ñu woon al ada ak jox lu dul ne ah kat doon nanu joxe asaka ndax xam na ne même bu ñu d'accordul ci imam bi xam nañu ne asaka moom lu war na jox nañ ko ñu ko yeyoo woon kooku daa ñu leen dëggal mais faaw ah illa an yaxrujoon dara boo dañoo daw li man exa ngir bañ a joxe asaka comme ni ahlul def yooyu defoon ci jamono si naw ko ñu ne bu fekkente ne daal dañu ne ñun daal doon nañu joxe asaka ndax xam nañ ne asaka moom la suñu borom a ko santaane yonente bi sallallahu alayhi wasallam daal nañ joxe asaka ñu dëgg la waaye fekkee nag bi ñuy daw dañoo bañ a joxe rek asaka asakaal seen alal daal ndax nay kon bu ñu waxee loolu duñ ci d'accord